salaamaaleykum mbokki esprit Gossas TV salaamaaleykum mbokki Gossas département bi commune bi yëpp hmm, tey dañoo ñëwoon fii ci garabu jomaay ñu dalal suñuy xarit suñuy doomu ndey les militants de les militants de PASTEF les patriotes euh, Laye Ndiaye ak euh, coordinateur Amadou Ba ak Ngana ñu ñëwoon di leen dalal ci ñu leen ni félicité ci seen victoire bi ñu am ci commune beeg département bi yëpp donc ñu bàyyi laa Ndiaye mu présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu maa ngi rek pour rek ñu gagné may nañu ndam. macha allah ah, moo tax ñu nañ def ak eh, wa esprit de Gossas TV nga xam ni nekk na instant bi en ligne boo xam ni c'est incontournable à Gossas mu nekk suñu grand bu baax boo xam ni vraiment mi ngi def liggéey bu am solo ndax tey rek maa ngi koy tooñ ñu ko informé Gossas instant bi si ñu ngi koy ñaanal aussi ñu dem ba nekk télévision mu am télévision bu mag a mag a mag macha allah waaw loolu nag ñaanal te yàlla ko yàlla def si wàllu vraiment démb ah, bi kontaan trop trop trop ndax euh, bu ñu xoolee ñi nga xam ne vraiment ñu ngi woon kanam nga xam ni Amadou xam ne vraiment moom boobu ba tey dañ yërëm sax fu mu mi ngi ci ku mel ni grand Adama vraiment ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci combat bi vraiment amuñu seen fay parce que nekkoon na loo xam ne lu jafe la parce que bii ndam moom vraiment dañ ko mérité yàlla dimbale nañu nag waa Gossas vraiment seetaan nañu koo xam ne rek dem nga ci urne nga wooteel Bassirou jël kii yam nga dugal vraiment kontaan nañ ci yow waaw li nga xam ne nag vraiment euh, Pastef ubul ay puntam képp koo xam ne rek sentir nga sa bopp ci Pastef gëm nga combat bi ñëw bokk parce que Pastef instant bi moom benn ñi ñu ñëw sax ñooñu ñoo gën a nekk ay militants sax te que ñun ñi fi nekk lan moo ñu ci boole mooy patriotisme waaw ndax ñun du ñuy xeexal Pastef leen motax parce que dañoo bëgg suñu réew mu wat ci loxoy sel loxoy sel ñu gis nit ko xamne nak nag vraiment doyloo lañ ko ñu Seydina Ousmane mu ah momit vraiment ñi top ko buñ ko topé top top top top top bo ba tay vraiment gàcce nañu ndax momit lu ne dal nako ko démé dem dem ba nga xam mom moom mënut dem ci lañu ah joxoon ñu jomaay Diomaye aussi ñu jàng si moom loo xam ne mosuñu koo gis si télé mu took wala ñu dégg ñu ne Diomaye wax na ne man bëgg naa doon jiitu réew amul mais Diomaye si boppam moom dañ koo joxoon rek ni ko yow la te yow sax yaa ñu gën a set kon nag ñun Sonko lépp lu ñu wax ni fii wala fële la rek te lu ñu wax si moom doy nañ ndax moom nit koo Sonko moo ñu doy comme pour ñu joxoon ni foo ko la asema koo xam ne da ngeen di liggéeyandoo yéen a bokk lépp yéen a bokk lu bëri waaw ba mu tudd la doom vraiment loolu ñun amatuñ leen boo ñëwee nag Gossas vraiment Gossas euh, ñun amuñu seen fay parce que ci quartier yi lañ doon démarré di def suñuy meeting di def suñuy waxtaan def maanaam ak ci grand place yeeg fu ne nekk nag ak na nga ko mënee waaw parce que ku ci nekk tamit kii bu libre tey fam fam libre fa la mën a waxee li muy wax jàllale parce que parce mission la ay missionnaire lañ fu ñu toog rek di nga xam ni ñii waa Pastef lañ parce que seen xam-xam ak seenum seeni xareñ ak liñ liñ gëstu liñ xam fu ñu toogee wax rek di nga xam ni ñii parti bi ñu àndal du parti cuune parti bi ñu yore parti la ñoo xam ni ay cadre ñoo fa nekk te li nga xam ni ci kaw moom la ñuy joxe ba ci suuf man boo remonté ci kaw moom nga fa fekk boo ñëwee ci suuf tamit moom nga fa fekk ki nga gën a yaakaar sax moo gën a tuuti ci Pastef bu toogee yow di nga xam ni kii am na lu nekkul parti boo xam ne maanaam dañuy yor yóbbaale ni wala dara mais dañuy am lu ñuy gëmloo mooy lan mooy patriotisme parce que ñun ñii ci yeneen lañ nekkoon de dañ daan xeexal man mii panafricain laa bu mag su ma publier ay Facebook wala WhatsApp wala leneen leen may publier mooy lan ay Thomas Sankara lay publier ay Kwame Nkrumah lay publier ay Issa Pouye ay ñeneen ak ñeneen ay développement Afrique mais bi ma xoolee Seydina Ousmane Sonko ni muy doxale daa ne daa c'est un grand parce que continuer discours am yi dina am panafricain parce que am na panafricain yu bëri yu ko topp yu ko topp tey parce que discours yi nii yi muy parce que discours bi aussi yow projet bi du projet boo xam ne Sénégal moo ko projet bi Afrique mi ngi ci monde bi yëpp parce que xam-xamam jéggi na Sénégal te boo dégloo ngay xool yenn chaîne panafricain yi nga xam ne ñu ngi émettre en Afrique lu mel ni DBS wala nga seetaan le panafricaniste TV wala seen ay yeneen yoo surtout ay seen caméra yi nga xam ne fa la ëppee dañuy waxtaan ci Sonko lo xam sax fii am na ñoo xam ne dégguñu eh, ñun dañ leen di suivre suba gi di déglu ñuy wax ci Sonko ñoom sax day mel ni ñoom ko gën maîtriser kon kooku combat léegi international ñun nag xam nañ ñu yore combat bi métti woon lool lool parce que lo xam dem na ko ay bakkan dem na ba nga xam ne ñoo xam ne yàqulu nañ ci laago na lu ne daal la nit waaye nag ñu ko xoolee ba xool révolution la rek parce que révolution moom mënut a yomb affaire mënu woon rek yomb yomb rek ñu jël pouvoir bi noonu wala ñu ni mu demee yëpp mooy lan mooy gars dañ koo gëm te daf leen jaral seen bakkan euh, ñu nag ñi njëkk a sant mooy ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan moom yàlla ne ñi nga xam ne tamit ah, am na ci laago wala leneen dal na leen wala yàqule nañ ci wala leen seen liggéey yàqu na ci ñooñu ñu ngi ni masaw parce que affaire bi métti na boo koy natt des wala ngay dugg ci réseaux sociaux di lire wala ngay dégg commentaire wala interview yi ak ñi kaso sa da ngay jooy boo boo dëggu di nga jooy parce que affaire bi fa métti nga gis doomu aadama yow nga daan xëy yore say laal mu ni yàmm la nga xëy benn jour ñu ne lay paquet sooy dem di sangu ji da ngay rang sooy dem ci douche da ngay xam nga loolu métti na cinq ngay nelaw sa morom ñëw nga nelaw loolu vraiment loolu aussi ñooñu ñu leen fàtte mukk mukk parce que combat bi yëpp tamit ñooñu la parce que ñoom biñ ci def ñun mën nañu sax est ce que ñun def nañu sax cat mais nag ñoom lu lu seen réew moo leen taxoon a jóg ak bëgg lu baax kon nag ñun ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax ñëpp ñi nga daal jàpp ci combat bi ñu ngi sant fii nag lu demee ci Gossas Gossas na dëkk boo xam ne depuis buñ ko créé ba tey Gossas waroon na jiitu mais Gossas li ñuy gis mooy leen dañuy am ay leader yoo xam ni chaque fois bu ñu ñëwee dañuy utiliser nit ñi suñu waxee ñu ni dëkk bi lañ soxla dañ koy liggéey mais koo ci fal dootoo ko bala nga ko gis mooy lan la am na campagne wala dara xew na mu daw ñëw te fanaan day dem yoonam kon nag loolu man jàpp ma ne kooku moom patriote la wala kooku mën liggéey Gossas Gossas suñ koy jox dañ ko war a jox ñoo xam ne fii la fanaan fii la ñuy yeewoo xam jafe-jafe waa dëkk bi xam lu jaa jëkk waaye nekk fële bu politique amee nga ñëw boo ñëwee buñ la joxee xaalis nga encaissé jël gars yi tuuf leen tuuti loolu wutu ñu naan ay suy perpétu jam xamul loolu lañ ci bëgg a jëlee ñun patriote parce que ñun patriote yi bu ñuy ñëw fii di di liggéey pour dëkk bi leen tax temps poste taxu ñoo jóg du xaalis ñu yaakaar wala leneen ak leneen ñun yaakaaruñu loolu ñun li ñu yaakaar mooy nañu liggéeyal waa Gossas ba waa Gossas taxaw ñuy jërëjëf yéen ñii lañ doon xaar na te loolu dafa war a am ci dëkk bi bi mérito na ko na doom yo xam ne tey jii taxaw nañ ngir ñëw ngir liggéey ak Gossas te buñ même bu du woon politique sax léegi dinañ imposé wu ñëw bokk ci politique bi di doxal parce que moom moom mooy mooy suñu devoir parce que dëkk bi tamit moom lu bëri moo ñu ko moo ñu ko defal parce que dëkk bi ci lañ jànge suñu na mën nañu wax ñun ñii ci lañ ko amee am na nag ñeneen ñu génn waaye boo xoolee ba xool ku fi am wala lu mu la mën di waxee tamit mënu cee génne Gossas parce que Gossas aussi dafa nekk dëkk boo xam ni dëkk jàmm la amuñu ñi amuñu problème ñëpp de benn lañ parce que ñëpp ay mbokk lañ sax la ñuy wax ndax message fi laajte boo nee kii diw la wala naa xam nañ kon nag ñun liñ bëgg ci Gossas mooy Gossas bu nouveau boo xam ne nouveau type de Gossas lañ bëgg nouveau type bi nag ñi ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ku mel ni ñoom Amadou Ba ku mel ni ñoom Sëñ Cheikh ku mel ni ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ñi ngi biir Gossas am nañ ci ñoom kóolute parce que gis nañ bu baax seen doxalin te ñun doyloo nañ leen baax a baax lii nag début bi la c' est le début parce que lan la nekkoon élection présidentielle mais ñun suñu ambition yemul loolu parce que loolu lan la mooy ñuy jiite waaw te jiite nag boo boo bëggee dara mënoo ko lu nga teg kenn ci kaw koo xam ne am na doole am nañ loolu ñun suñu liggéey beneen liggéey lañ nekkaat beneen phase mooy lan ñi nga xam ni maanaam bokkuñu woon ñi nga xam ne ay patriote lañ fuñ mënoon a bokk tey nañ ñëw bu ko sax taxee jóg nañ ñëw jàppale gars yi nga xam ne ñoo nekk fii ci base di liggéey suñu base di liggéey fii yëpp ba département parce que ñun luñ bëgg luñ gën a bëgg mooy naan mairie bi ñun dañ koo bëgg a jël téyal ko suñu bopp lépp lu nga xam ne dugg na ci mairie bi wala luy ñëw Gossas ñu wala ko ci yoon kenn du ci jël dërëm wala nga fell ci dërëm wala ngay def loo xam ne nit ñi dañ ko dégg di la reye wala say partisan duñ mën a toog fenn di la layal bëggatuñ loolu bëggatuñ ñu jox Gossas loo xam ne Gossas da cee war a jëriñ ñu lekk parce que Gossas li fi dugg lépp buñ ko defoon ni ñu war a defee kon Gossas bi liñ fi dugg yëpp boo déggee dañaa la nangam taf yëngal daal lañ fi taf yëngal taf yëngal nag dafa war a jóge Gossas da ngay def infrastructure boo xam ni Gossas nañ ci gis seen bopp Gossas waaye nañ seen bopp te wax dëgg fi yàlla man Amadou mi bi ñuy waxtaan keroog wax na ma projet yoo xam ne sax man xaw ma ko woon si moom te vraiment ma ko xoolee xam naa ne lii nii lu mën a def exploiter Gossas parce que nit ki nga am suuf rek vraiment waroo ñàkk dara parce que bu lu mel ne ay Maroc wala ay ay Japon dem bay bayee ci koo xam ne ay xeer la ay montagne di jël seen loolu ñuy bay di ñëw ci Sénégal gi di ñu ko jaay asamaan ñun ñi nga xam ne sol bi ñële sol joor la nga xam ne lu bëri mën nañ ko fa exploité liggéey ñàkku fi dara ñàkku li ñàkku mooy na nga nekk koo xam ne patriote nga mais buñ la joxee nga yow def sa bopp def sa def si say mbokk def say partisan loolu kon da ngaa waa dëkk da nga waa dëkk bi rek pour dem waa dëkk loolu nag dañ ko fee bëgg a jëlee te dëkk mënoo koo développé mukk te amul industrie boo jëlee Gossas waxuma la euh, région de Fatick sax mais boo jëlee yeneen région nga taw fi ba Tamba nga taw ba fu xool mais gisoo fa benn usine boo xam ne ay mille nangam jeune wala dara ñu ngi fay liggéey di fa gàncax di fa gañe si seen ñax ñi ñuy gañe foofu xaalis boo xam ne leer na ni ñuy soxlaa lu ñu kenn dara fii li am ñu ñëpp teg nañ ci seen bët li métier yi mooy lan nga koy ñuy dawal Jakarta wala ñuy dawal sareet wala ñoo xam ne ñu ngi ci yoo xam ne vraiment tey jii bu fekkoon dëkk bi dox na seen métier dina génn xam nga lu mel ni tailleur tey Gossas ñu ngi ñu bëri nañ mais lan la mais dëkk bu amul ginnaaw am ñoo xam ni maanaam ñu ngi liggéey di ñëw di leen jox nga xam ne ñoom dañuy man di di liggéey ñoom it affaire bi day mais yow da xool ñoo xam tey même bu ñu amoon ay commande wala dara sax duñ ko yóbbu feneen duñ ko duñ ko jox waa Gossas wala yooyu commerçant boo xoolee commerce Gossas waroon naa weesu fii tey boo ñëwee ci ville Gossas da naan ba xam ville la boo ànd ak gan sax da ngay rus tey ville Gossas buñ ko mënoon def tey immeuble lay doon foo tourné boo nit mën na jóge fële mu nekk ay centre commercial yu mag nit ñi di jënd ci ay marchandises wala ñi ñëw fii di wàcc ay conteneurs yi yeneen régions ñëw di ko jënd di dem te loolu lépp mën na am Gossas parce que Gossas am na espace ak fuur la ba fi mu nekkee diggante bi national 4 bi nekkee moom vraiment fu nekk mën nga faa jaar dem kon nag ñun suñu ambition mënuñoo dévoiler lépp mais mënuñoo wax ni. buñ ñu dénkee incha allah Gossas mu tegu suñuy loxo ñun ci suñu bopp sax képp koo xam ne naroo jubal sax ñun ci suñu bopp ñooy wëlbéeku dal sa kaw parce que ñun duñ nangu tamit maanaam suñu réputation kenn du ko yàq duñ nangu aussi nga bokk passif ba pare nga xam passif li mu ëmb ak ki ko jiite li mu daj ak ak li nga xam ne maanaam foofu foofu la teg tànkam nga ñëw di ko changer duñ ko nangu waaw ndax loo xam ne yow da ngay jariñ tiyaaba la loo xam ne yow sa réew ngay jariñ patriotisme ci ci jaamu yàlla la bokk ñun ñëpp nañ gën a góorgóorlu gën a jàpp te xam ni Gossas dëkk la boo xam ne mën nañ ko suqali te ñun ñoo ko mën a suqali nag mooy jeunesse moo tax gën a am xoolee électorat bi jeunesse bi moom moo ci lu lu loo xam ne lu am solo la parce que man dama ti tiit sax ni comme keroog li xewoon ci élection législative bi dem ba Seydina Ousmane Sonko mooy génn naa leen jeunes yi nañ génn dem vote ji laa moom dama ci doon xam ma ne loolu de bu ko parce que duñ génn topp ci caravane yi ñëpp taw ñaan ñii ñii am ñu taxaw naan xale yi amuñu carte d'identité lu ñu wax ko tey booy yi démontré nañ ni xale yi am nañ carte d'identité te xale yi am nañ luñ bëgg am nañ luñ gëm ay xale lañ mais xam nañ léegi politique ni muy demee. parce que réseaux sociaux yi changé na lépp changé na doon bi boo jàngul sax soo dee déglu xam nga bu baax li xew te naxaate bi léegi nag jeex na fii moom kenn mënu fi fee ndax kenn marché du fi dugg leneen du fi dugg ñëpp xam nañ ñi dañ bu boobaa nit ñi dinañ xam waaw mais instant bii nag moom dañoo bëgg travailler dosage bi yëpp quartier bu ne nga boo fa am nit bëgg a ñëw wala nga am foofu mbooloo yow fexeel nga regroupé wu nga jéem a coordonné ak coordinateur yi nga xam ne ñoo nekk ci mouvement bi su ko defee ñoom yow lu nga wax sa soxla wax li nga xam ne moom nga gisee boo amee sa savoir boo ci mën a yokk nga yokk leen soo amee loo xam da nga koy bind nga bind ko jox leen lu mën di yow foo ko mën di jaaral ñoom dinañ ci jot ñun loolu lañ bëgg loolu lañ mooy suñu ambition ci Gossas loolu daal buñ ko defee incha allah gëm nañ ñi ah ñëpp jàpp ci rek Gossas ci kanam rek la jëm ndax nee naa man li ñu naan euh, Touba ca kanam wala ñu naan Tiwaawan ca kanam yooyu yëpp mun na am Gossas Gossas mun na am Gossas ca kanam boo xam ne waa Gossas ñoo koy financé defar fi li ñu bëgg a defar infrastructure yi nga xam ne soxla nañ ko waa Gossas waaye bu ñu ndax diaspora bi Gossas na doole am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi wala feneen bu ñoom Gossas rek mais dañoo gisul bunt boo xam ni mën nañ faa awee pour pour dimbali Gossas kon nag nañ ubbi loo xam ni dinañ ci mën a def loo xam ni comme bu doon tey kanam la ñu ko nga xam ni du waa Gossas soxla wala loo xam ni manqué na fi waa Gossas di ko jooy di def ci dëkk di ñun nañ teg suñ tànk foofu noonu liggéey pour Gossas waaw parce que man daal man loolu laa gëm loolu daal moom mooy nekkoon li ma ci doon sànni xam naa comme gaa yaa xam naa nag naa mais naa bàyyi yeneen gars allah ñoom it hmm. joxe si seen avis parce que ñun aussi fii la ñuy toog chaque jour di débattre vraiment am na solo tax nit sax dafiy ñëw kan sax dafiy ñëw mais day toog fi ba si yàgg dañ koy convaincre ah, loolu aussi lu am solo la macha allah kon nag ñu ngi leen di leen gërëm ah, di gërëm nga xam ne interview di gaaw a moom wax dëgg yàlla jàmbaar la ñu ngi leen di sant ñëpp macha allah. waaw jërëjëf laay. kontaan nañ trop ci intervention bi am na solo donc ñu bàyyi Ngana mu sànni ci ay kàddu rek. waaw kooku ñu kàddu yi moom li ma ci yokk moom leen dong la parce que Pastef moom li Seydina Ousmane Sonko seen bi yàgg a wax rek moo ci nekk Pastef moom projet la boo xamante ni ne moom ngëm-ngëm que amul xaalis nag boo xool xam nga képp koo xam ne moom euh, wut xaalis mooy li nga yaakaar parce que boo yeboon ko am te ñu bëri fi mu toll nii dañoo jàpp ne maanaam euh, euh, par par ku ne na ni Pastef du parti pouvoir Pastef moom ñi ci bokk bëgg am yéene rek ñoom ñooy yëkkati ñoom ci lu ñu am di def ci parce que mais parce que moom du parti boo xam ne day jëndee nit wala ngay financé ay nit wala ngay kii kon maanaam bëgg-bëgg nit rek mooy tax nit volontaire pour jàppale parce que waaw ak vision boo xam ne moom la Ousmane Sonko mu seen mi daal di teg te loolu ñu koy ñu di ko rafetlu nag yàgg cee taxaw nag moom suñu taxawaayu féete moom yow mii sax tuuba am na lu ci leer moom loo xam ne moom suñu féete ci parce que moom amul suñu ko nit dañ ko doon doxee di ko waxee parce que tamit vraiment euh, ki la ne seen réew bu tegoo ci yoon wii nii jàll kooku yaakaar naa ne yéen sax yéen a ko war a tee fay parce que Sénégal nag fii koo fi jël ak ku mënti doon li mu bëgg moom la ñëpp bëgg fii kenn bëggu fi lu bon de mhm. fii fi jël lu baax la bëgg muy ak ku mënti doon politicien ko mënti doon lu baax la bëgg kon boo gisee ko la Sénégal bu ñu ko jëlee fii jaarale ko ci yoon wi rek mën naa àgg loolu danga kee war a yow sax bu fay dem yow yaa a fay mhm. parce que nag ku ko xool xam ni noonu lay doxee nekkul parti bi yor ay a kii budget di financé ak kii mais tamit euh, sant rek di yàlla suñu borom fekkente nii ne dem na ba lépp leeral ñu xam ni Pastef la ñu euh, ñaanal suñu président euh, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàlla suñu moom yi fa yéen di ci kawam quoi waaw gërëm patriote yi nga xam ne euh, wax yàlla yàgg nañ ci liggéey bi di déplacement ñoom nag moom ñoomaat ndax man moom yenn déplacement yi moom wax dëgg yàlla ak yenn coono yi moom defuma ko si moom wax dëgg yàlla waaye nag mais def nga ci lu am solo ndax gis naa la nga toog ci jotaay di waxtaan ba convaincre ay nit ba ne xaw ma da leen a tuubal loolu laa bëggoon nga may ñu ci tuuti ñooñu nga tuubal ñoom Pape Dieye Diagne gaa yooyu noonu may ñu ci tuuti. loolu dafa neex waaw maanaam tuub bi moom. tuub bi moom xam nga gars yi politiciens yi rek ñoom ñooy faral di wax leen. ndax boo gisee tuub bi da ngay jékkee ñu ne la projet bi kat Ousmane Sonko maanaam day wax ne ku jógee ci système bi doo bokk ci système bi ma ne leen nit yàgg naa def erreur nit mën naa joo bokkoon ci système bi mais bu ñëwee balaa dugg ci président Ousmane Sonko nekkul hmm. sangu farata waxtaan hmm. nga wala. Hmm. noonu la demee mooy li ñi nga xam ne dañoo nekkoon feneen ci parti yi nga xam ne dafa am ay bàkkaar ak yooyu. suñu ñëwee seen bàkkaar yooyu dañuy bañ ñu ko dugal ko ci sangu farata suñu paree wax kaddu seede yi. suñu waxee kaddu seede yi rek moom ñëpp a jeex loolu jeex na quoi yi moom kon leen yéen amu leen ay amu leen amu leen ay de première heure ak deuxième heure. waaw maanaam ñi fi njëkk ak ñi mujjee ñëw quoi. waaw maanaam parce que moom bu xas ba dugg rek patriote nga quoi. waaw maanaam jàpp ne patriote moom ngëm-ngëm la rek nit ki mooy gëm nekk patriote. parce que nee naa la parce que fayuñu kenn financé wuñu kenn. dëgg la man de man moom campagne yi am na fi jox naa ko fii kon xam nga ne te terewul tamit ma gëm li ma hmm. xam nga ci ak sama morom noonu sama morom noonu képp koo xam ne sax xam nañ ne parce que nga ko boolewuñ la ci dara mais terewul tamit bu yàlla waaw parce que Sénégal moom politique bu ku ne xam nga ñi nga xam ne moo fi am maanaam bu bu lu baax génnee sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yor rek ñoo koy séddoo ci seen biir su fekkente ni ne euh, génn na tamit ñeneen ñi bokkuñu loo tax nag Pastef moom képp koo xamante ni engagement daal moo ci mën a boole parti la boo xam ne ku amul engagement mënuloo gëm kas Pastef parce que kuy wut xaalis wala ngay wut leneen mënuloo bokk Pastef waaw parce que parce que or que sax ñun ñooy woot jël suñu ak liñ ci am bu Seydina Ousmane Sonko mu seeli mi ñu tàmbali ci suñuy ñàkk barkeeloo waaw. yéen i cotisé rek am na solo am na solo macha allah ngaan na kontaan nañ toog donc ñu jéem a xool nag nan la ba tëj émission bi ñu bàyyi le le coordinateur Amadou Ba Moussa na xam naa du bari Moussa na ci ay coordinateur. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di ziar eh, di la wax ne kontaan nañ si liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy def si biir Gossas commune de même qu'au niveau du département eh, tey nag dañuy jàpp ne bésu mbégte la eh, bésu mbégte la parce que yàlla dafa dogal démb bu ñu doon jongante bu nga xamante ne c'est historique Sénégal yàgg na am ndam wala jaloore yu nekk yàgg na fi xew mais démb bu taxawaayu Sénégalais adduna du tukki kenn du ko mas a fàtte parce que yaakaar nañu ne c'est pour la première fois après ñuy fal président bu jóge opposition au premier tour loolu mooy wane ne y a une très grande rupture en tout cas qui sera marquée et qui est déjà marquée et loolu nag rupture boobu su amee sama naataangoo yi si ñëw nañ si parce que ah, dañu am dañu am njiit nga xamante ne ah, euh, vraiment yàlla dafa dogal borom dëkk bi amul ñu bu nga xamante mu doon président Ousmane Sonko président si ay valeur am si ay qualité moo tax askanu Sénégal yëpp jox ko bopp yàlla dégoolee natt yi nga xamante ne yëpp tegu na si kaw ba mënul nekk candidat ñu joxoon ñun Bassirou Diomaye ñu duppee ko Serigne Bass tey jii ñëpp xam ko si borom mbégte mi yaakaar naa ne moo tax nee naa ko ku xool démb misaalu journée démb bi rek ni mu seddee ni mu seddee guy dañ ciy profité di ñaan yàlla na démb ni mu seddee bay wis dëgg nañ ko Dakar yàlla na ndam li seddee noonu guy si biir Sénégal yëpp yëpp ba doomu Sénégal yëpp mën ko mën ci yëg seen bopp am nañ si yaakaar nag projet Pastef sama naataangooy ñëw nañ si am na si yaakaar parce que ñëpp ñu ko ŋànk jógee si bopp ba ci suuf en tout cas si li ëpp li ñu xam jub nañ ñu senn nañ nga xamante ne lenn rek moo leen ñor mooy ñu développé loo seen réew ñu développé loo seen réew nag moo ñu ànd dafa yomb pour ñu ànd dafa yomb moo tax fii nii suñu si Gossas dañuy sant vraiment ñi nga xamante ne coalition biñ ñu bokkaloon liggéey bi parce que ku wax ku wax bureau politique di nga wax vraiment ñi nga xamante ne ñoom nga bokkaloon liggéey bi yàlla nag dogal ñu def ay choix yu nga xamante ne ñun dañu jàpp ce sont ça euh, a été des choix gagnants si choix gagnants yi nag mooy dañoo la waxoon ne ne si biir c'était pas prévu ñu ñu fal un directeur de campagne mais comme parti bi ni mu ko xamee di ko baaxoo mooy que fépp fu ñu rek am nañ ay référence te sëñ Cheikh Lo nekkee suñu wet wax dëgg fi yàlla di ñu jàppale si liggéey bi yaakaar naa ne si la ñëpp dëppoo na xaar sëñ Cheikh moom mi kat suñ ko defoon docteur de campagne ci au niveau de la commune de Gossas je pense que bu ñu defoon baax mën nañu gagné élection yi. mu nekk nag lu ñu gëm lu ñu nangu mu nekk lu sincère suñu diggante ak moom ñu daal di koy nangul la coalition moo tax sëñ Cheikh aussi vraiment coalition bi ñu ngi lay sant di la gërëm yaakaar naa ne am nañ suñu nga xamante ne comme ni ñu ko wax ku lim juum parce que parfois des fois dañuy bëgg di lim ñëpp mais si lim bi des fois da ngay fàtte. Eh, ñenn ñi xëy na peut-être mën nañ ko gisee leneen mais man nañ wax daal à travers seen Cheikh Lo ñu ngi remercier bu baax a baax a baax ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoom lañ bokkaloon coalition mu nekk góor mu nekk jigéen ñu wax leen ne leen ne taxawaay bi rafet na te am nañ yaakaar que ne changement bi déjà c'est déjà acté ni ko tubaab bi waxee eh, te ñu ñaan yàlla rek ñi nga xamante ne tey yàlla moom la def te ñu naan ñu déjà amul ba nangu na. que ne Bassirou Diomaye moom moo gagné élection yi. Ah, te nañuy ñaan yàlla rek. noonu nga xamante ne lépp dañ ko def si scrutin bi nit ñi dafa ko joxante loxo. ñëpp bokk nay bokk bàyyi ba yàlla def que tey jii Bassirou Diomaye mu nekk suñu président mu gagné. ñu ngi koy ñaanal yàlla mission bi nga xamante ne moom la ko suñu borom jox yàlla na ko mën a matale. si barke Seydina Mohamed matale ko si matale bu mucc ayib. matale boo xamante ne benn Sénégalais du ne damay rëccu li nga xamante ne ñoom laa doon àndee ak ñoom. fii nag si Gossas ah sama naataango wax na ko dañuy bëgg a continuer wéyal liggéey bi wéyal liggéey bi mooy am na lu bari lañ bëggoon a def luñ mébétoon lu mel ne taxawal magi Pastef parce que comme ni ñu ko waxee parti politique dañ koy yaatal rawatina politique Pastef li mu wax lu ñëpp bokk ñëpp jot si ba tax ñu amoon yéene taxawal magi Pastef si bopp ba nag dañ fa jiitaloon docteur Mbissane euh, vraiment mu nekk ku nga xamante ne euh, ku engagé aussi dans le projet donc ñu koy remercier de passage euh, démb jaar nañ këram félicité ko remercier ko si taxawaay bi nga xamante ne def na ko am nañ yéene aussi surtout sama mbokk enseignant yi parce que il est important ñu xam ko am nañ yéene aussi vraiment taxawal ce qu'on appelle MONET mooy kuréel bi nga xamante ne moom mooy ëmb enseignant yi ñuy defoon ci comme responsable mu di ko coordonné Pape Barham Babacar Dieye aussi ñu koy félicité bu baax di ko war nañ taxawal aussi doomu daara parce que il faut que daar daara yi yëpp yëg ko à travers notre message am na yenn yu nga xamante ne comme ni ko gisee parti bi au niveau national ñu bëgg a taxawal la monap au niveau de la commune de Gossas parce que man sama yéene mooy lépp kuréel bu nga xamante rek am na si parti bi ñu bëgg Gossas commune am ko parce que nag Gossas commune euh, dafa yàgg marqué histoire politique bu Sénégal parce que démb maa ngi koy wax ay xale naam xëy na kat ñenn ñi dañ koy xam xamuñu ko mais yàgg nañu am ay référence mën nañ laj laj si wàllu politique te xam nañ ñu si bari lajj nañ mais ay référence lañ seen nekkoon lu mel ne docteur Abdourahmane Kane dans son domaine li mu nekkoon référence la c'était un médecin un professeur ra distingué vraiment boo xamante ni ñëpp xamoon nañ ko yaa ngi dégg tey jii euh, vraiment am nga ñëw Habib Thiam dégg nañu ne am nañ taarix ba si bun Abdoulaye Dione doon te ne bokkuñu woon xëy na pay taxawaay mais ñëpp xam nañ ne doomu Gossas la am na luñ ko mën a tàggee am na luñ ko mën a reproché mais quelque part dañuy xam ne ne dañuy nangu ne kat vraiment référence la sauf que nag suñu projet dafa gënoon a yaatu rek mosam ndax comme ñun li ñuy wax rek nekk ñu si par parlo Ablaye suñu ñu ne ko léegi nekk ñu si par parlo ndax tey jii ñun ñi su fekkoon ne dañuy def lu nga xamante ne naka suñu noonu ñi ma njëkk a àndal ñoom ma njëkk a wëlbati parce que ils auront courage de me la vérité parce que wax nañ ne fii. amul koo xamante ne rek da ngay yëkkati xaalis di après nga jàpp nit ñi en mmh. nga leen di ñàkk warma nga leen di ñàkk teggin mmh. bañ a jox nit ñi doomu aadama mais ñun ànd dëgg-dëgg ànd nawle suñ koy wax ànd góor suñ koy wax rek parce que loolu la ñu ko ba tax na euh, vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp noonu tamit lañ ko bëgg a taxawalee si jigéen ñi waaw bëgg nañ taxawal mouvement bu nga xamante ne on va regrouper les femmes de vraiment ba nga xamante ne pàcc bu ne rek dinañ ko taxawal jeunesse bi dèjà amoon na les artisans dèjà am na ñuy remercier Jili Baabu moom moo nekk si artisan yi hmm. Soxna Touré moom moo nekk vraiment si si jeunesse patriotique du Sénégal au niveau de la commune de Gossas donc pour wax ne ku yooyu yëpp ñu bëgg a taxawal euh, vraiment monsieur le journaliste kuréel yëpp ñu bëgg a taxawal donc dañ si invité population pour bàyyi ko xel leneen li ñuy wax nag mooy que ñu yéene ko Euh, mooy fas yéene nañ solaat suñu dàll ñëpp ñi nga xamante dañu jàppale woon Gossas fu ñu jàppale woon Gossas ñu xam ne bëgg nañ dem seen kër yi dem si quartier waxtaan ak ñoom remercier am ku xamal leen ne leen ne vrai ñun projet bi suñu bopp taxul mu jóg mooy dañu bëgg def waxtaan yu yaatu waxtaan yu yaatu pour que xëy na peut-être au niveau de Gossas commune même que au niveau département ñu xool d' abord ñun nan la ñuy doxalee projet bi au niveau de notre commune ndax nag balaa ngay taxaw di xaar le niveau national di ñëw dañuy wax nit ki balaa ngay laaj nan la la sa réew war a defal yow da nga war a xool yow lan nga defal sa réew ñun si position boobu la ñu ne pour ñu mën ko def nag dañ ko bëgg a ànd ak Moussa Sow yëpp dañ ko bëgg a ànd ak tous les responsables yi nga xamante ne dinañ si def ay waxtaan yu yaatu yu nga xamante ne loolu nag buntu la bu ñuy lancer pour wax ne. dañoo ubbi suñuy bunt au niveau de Gossas commune pour ñëpp ñi nga xamante ne vraiment am nañ qualité suñu ñu ñëw ànd ak ñun bokk ak ñun bokk ñun ñun liggéey bi euh, mënuñu tëj tamit vraiment te euh, sant ñu bu baax suñu SG parce que aussi parfois ñu baal ñu ko dinañ tudd yenn tur yi ku mel ne SG Assane ñi ngi euh, soo xoolee depuis le début vraiment moom aussi mu ngi taxaw di ñu jàppale si liggéey soxlawul dara wutu si dara. donc chaque jour il est avec nous donc ñu koy sant bu baax moom tamit di ko gërëm parce que aussi mën na am beneen taxawaay en tant que secrétaire général ndax daanaka ëpp ñu ko cër si parti bi mais chaque jour mu nekk suñu grand dañuy conseiller dañuy jàppale et dinañ remercier tamit certaines personnes xëy na peut être leen bett lu mel ne suñu grand Jogay euh, tey jii sax dañuy wax nan garabu Jogay la ñu taxaw Jomay mais man dama naan garabu Jomay. garabu jogay dañu ñëw. Ah, euh, daanaka bokk na si li gën a tax ma bokk vraiment si si si Déthié loolu bokk na li gën a tax laay ma bokk si vraiment ñu def waxtaan bii nii ah. xamal am solo que ni Gossas yaa que des diir fils de Gossas yu nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jàppale. noonu ñu mettre vraiment son véhicule à notre disposition noonu la ko Adama Diakhaté defee noonu la ko Grand Moussa Dete defee noonu la ko Latif Ndiaye defee ñu féliciter suñu ñu remercier suñu sofër Ndiaye Fall sànq suba rek. campagne bi jeex na mu envoyé message ne ma soo soxlaa oto bi nga woo ma ah. donc noonu la ko grand Moussa Gueye defee ñoom Fatou Kébé ñëpp ñoom Balla Gningue ñëpp indi seen seen contribution vraiment pour projet bi mën a réussir suñu grand tamit Cheikh Lamine vraiment ñu xam ko il a beaucoup contribué en silence vraiment pour lu réussir loolu projet bi Adama Diakhaté moom ñëpp xam na taxawaayam donc ñëpp xam na taxawaayam donc il est incontournable euh, ba xalaat bii ma lay wax ni xalaat bi ma laa nii bokk na si ñi ma ko waxal tey ci suba fajar teel la moo dama Amadou naam def nañ liggéey bu am solo mais des des bi mooy lan mooy war nañoo sol suñu daal dugg si koñ ñëpp ñëpp ñu ñu woteel suñ mënu dajeeg ñëpp ñu dajeel kuréel ya ñu fa représenté muy les cellules de quartier ñu waxtaan ak ñoom remercier leen kon xalaat bu rafet boobu noonu grand Adama Jaxate ñu ngi la koy seedeel di la wax ne lu ñu nangu la lu ñu kontaan te xam nañ ne loolu tamit moo ñuy jëmale loo kanam parce que adduna il faut nga reconnaissant gis nañ fi doomu Gossas fal ku ñu ñoo tax ñu si bari wala ñoom seen bëgg-bëgg seen yéen ñu bëgg président Diomaye ñu dem remercié waat donc vraiment comme lañ koy sante di sant nag famille bu nga xamante ne ñu ko wax peut ma leen di tudd bariwul ñu xam ko parce que ma leen lu bari duñ bëgg si muy famille kër Oustaz Mbacké Cissé depuis projet bi tàmbalee parce que ba léegi. lépp lu xew daanaka parce que foofu lañ koy def te yaakaar naa ni c'est pour la première fois nit gis leen ci wàllu politique à Moussa rawatina nag li ñuy loo xamante ne man leer na ma ne nanguluñ ko sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk si kër gi mooy saa buñ soxlaa foofu la ñuy dem si soxlaa luñ toog foofu la dem si soxlaa glace yu jënd lu ma laa nag contribution bi lépp loo fa dem lépp lu ñuy def ñoom ñoo la koy defal jox la ko gratuitement donc vraiment ñu wax suñu yaakaar ne tuddee ñu ngi koy sant ba di ko gërëm euh, si moom mii moom rek la ñuy jaar pour remercier toute la famille Cissé doon wax ne gis nañ taxawaay bi kontaan nañ bu baax allié yi moom sama frère laay ñëw na si daanaka duñ si wax lu bari mais dañuy tënk rek di remercier vraiment allié yëpp ñoo jàppale ñu euh, pour que ñu mën a réussir suñu combat combat bi nag suñ ko réussir moi je dis que ne mention spéciale à la jeunesse de Sassouas vraiment cette victoire cette victoire dañ koy tëjee la jeunesse que ça soit teel wax ne kóolute bi ngeen am si président Diomaye am ko si président Sonko am ko si man Amadou Ba duñ leen masa war duñ mas tas seen yaakaar te yaakaar naa ne lépp luñ mas a boole rek kóllëre la dëgg la bëgg doomu Gosaas bëgg Gosaas moo ñu boole kon loolu nga xamante ne yàlla suñu borom moo ñu boole dañuy ñaan yàlla yàlla gën ñu dëgëral ñu ànd ànd bu rafet parce que des fois dañuy gis ànd politique yi tey ñii ànd suba ñee jaar fee ñii di wax gauche ñii di wax lu ñaaw yàlla dañuy ñaan yàlla yàlla bu ñu loolu daal ñu ñaan yàlla daal di lancer tous les un message à tous les patriotes di leen wax ne nañu gën a juboo nañu gën a bennoo lépp lu nga xamante ni daf la rëcc si nga jàpp ko lënt lënt sa diggante ak sa morom bum bum la def nga di ko ŋañ mais jéemal nga kaa jege ak moom waxtaan ak moom su ko defee di nga xam nga xamante ne dina mën vraiment si loolu daal la ñuy tënk di ñaanal waa yëpp yow Gossas yalla na fi yàlla doon jàmm yàlla na yàlla doon sutura xam nañ ne aussi dëkk bi du liggéey bariwul euh, vraiment situation dëkk bi métti na mais ñu ñaan yàlla rek yàlla na yàlla gën a dooleel doomu Gossas yàlla dooleel suñu président ba nga xamante ne yaakaar boobu ndaw yi si am suñu muy wàllu liggéey yàlla yokk ko vraiment ba ñëpp mën a am liggéey parce que loolu mooy finance doomu aadama nga am loo mën a jàpp suturloo sa njaboot mën a yar sa njaboot si diinay lislaam loolu ko fàtte parce que nit ki su amul li ñuy wax ne la dignité du pauvre et du riche mënuñu yem parce que ñàkk vraiment parfois loolu ku ñàkk rek da nga war a bëree di mais parfois mën na pousser nit ki mu def lu mënul lu mënul def wala mu dem di tàllal loxo mal bu ñàkkee parce que dafa nekk situation yu sonn loolu bi ñu nekk daal ah, métti bi si ñoom mu la nekk yàlla ñu ko yàlla suñu borom teggil te am nañ si yaakaar bu baax ak président président Diomaye vraiment ñu ngi santaat bu baax comme ni ko la coalition ku lim juum képp nga xamante ne rek yaa ngi doon jàppale coalition bi si zaay rek si baatin sëriñ si vraiment gis nañ seen taxawaay ñoom tamit ku lim juum ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay démb wax naa ko bi caravane bi di jeex sëriñ su bari dañuy jàppale kon yaakaar boobu ñooñu si ñu leen di xamal ne dinañ fa delluwaat ndax amul këru kilifa diina bu nga xamante ne teguñu fa suñu tànk sàkku seen ñaan ba pare ñu xam ne nag dañoo ànd ak ñu waaw parce que ñaanuñu rek bàyyi ñu dañ ñoo gunge si ñu war a gunge kon vraiment ñu ngi sant bu baax di remercier encore une fois toute merci beaucoup. jërëjëf Amadou ñu ngi si ak ñu ngi kontaan euh, ci intervention bi am na solo lool jaajëf donc ñu dugal Déthié Déthié moom it ñëpp xam nañ ko ci patriote bu engagé dëkk euh, Para très engagé même sax vraiment donc ñu jox ko kàddu gi mu waaw waaw waaw moom moom moom moom xamante nañ ma nag moom bu baax ndax moom lu mu nekk moom da ciy fës mënut donc kon ñu bàyyi nga sànni ci ay kàddu après victoire Diomaye bi au niveau de Gossas. asalaamaaleykum di remercier waaw suñu moo moo ñu gën a xam parce que moom moo tax di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal di ñaanal parce que jawwal fay jël fay tamit yal na ko jig quoi di ñaanal jël xam ne lii moom lii moom jongante la woon rek mel masque football rek ku gañe daal jeex na ko yëpp na nekkaat benn soo ko sax doon baaxoon ñun quoi ay buñ demoon bàyyi gañee ni moroom ñu ànd liggéey mooy mooy mooy mooy politique rek politique boobu yaakaar naa mënut a diviser ko sax quoi bu ñëwee diviser ñëpp benn amul bi boo ko xam boo xamul woon sax parce que mën na ko jëlee doo quoi waaw ko di ko wax seen jeunesse si bosa yëpp ñu xam ne doo faral ci benn kanam xam ne ñu ñëw ñu ñëw ñoo nekk benn liggéey ko sax quoi xam ne ndam li ñu am ndam li ñu am ndamu Sénégal ndamu ko sax quoi ndamu ko sax quoi waaw ñaanal ñëpp jàmm ñaanal réew mi jàmm yàlla na yàlla na fayal seen kaw lépp lu ñu bëgg Sénégal lépp lu ñu ak yi suñu doom suñu doom suñu doom suñu doom lépp lu ñu bëgg suñu doom dafa dem yaa dafa leen jàpp baax a ñëw ñëpp jàpp waaw sama si yëpp daal ku mën ku lim dum laa mënu maa waxal yëpp quoi mais am naa ci am na yoo xam ne moom saa il faut ma lim leen quoi mm-hmm. waaw ku ci mel ni ñaar ñi ma toogal rek ak jogay jogay jogay waaw moom da cee sax sax ak gars yi nekk bu nekk bi nekk ginnaaw. Aziz Aziz Aziz waaw ay Ousmane lañ waaw ay ñoom Ndiaw lañ ñoom Bolle Bolle Bolle ba ma dugal si Pastef man bon Pastef 2021 laa dugg waaw mu nekkoon sànq benn dugub rek mu naa wax man suñu suñu waa jaay bi nii man kii mooy kan man kii mooy kan lay woo dugg naa quoi Bolle mais loolu xam ne ko moo koy wax mu ne ma kii mooy suñu waa ji ma ne ko ah kii de moom vraiment te eh, naa ko jéem a ko def quoi mais bu ñu demee discours defaat maam ne kii mu jubul man ku jub rek koy wane dama koy wane bu ñëpp xam. Mm-hmm. Euh, euh, bool. de bébé. waaw boo tëgg bool trente minutes. waaw ñu booy alkaay jóge yeeg ndaw yëpp yéen a ko yàq. waaw dafa amul ñu ñu na ma leer koy gañ. visibilité man nee ko seen di wër di doon sax visibilité damaa ne teg eh, xam ne lii lii dafa leer man gisoon naa ko bi lay wala gisoon naa ko la toog naa fi dernier moment wax ko fii man Gossas dina am changement boo xam ne tey ci mu wax ci maire yi di jaar yi dina am boo xam ne du ma sax parce que lii ndaw ñu ndaw ñu dëkk bu bëri soxla quoi

jërëjëf. loolu ah. la noonu la ngëm-ngëm la ngëm-ngëm dafa fort donc. Euh, sama gars yi man ngi ziar yéen ñëpp ñu doon suivre Esprit Gossas TV donc ñu doon def benn interview bu ndaw rek ak les patriotes de Gossas euh, Amadou en l'occurrence Amadou Ba le coordinateur Ablaye Ndiaye ak Déthié ak Ngana donc pour wax leen ne leen nag euh, lépp Gossas la quoi mm. donc bu bu yi jeexee tamit ñun ñoo ñooy demandoo ci ngénte yi ñooy demandoo ci dëj yi uh-huh. ñooy toogandoo ci grand pass kon jàpp naa ne fi mu demee ba programme les résultats yi donc na nit ñi ku ne xam ne campagne woon jeex na donc man mii tamit euh, de ma part en tant que PDG Expresso TV ak couverture yi ma def ci kii yëpp ak lépp loo xam ne dugal naa ko mu neex nit wala mu naqaree nit maa ngi ciy jégalu parce que informé Gossas donc moom moo ma ñëw quoi. dama am ñi may suivre ñii dañoo far fii ñii far fii donc mënumaa dugal kenn bàyyi kenn donc kon comme ni ma leen koy à chaque fois mooy idée yooyu esprit Gossas TV c'est faire la promotion des Gossassois et faire la promotion de Gossas te jàpp naa ne ci logique boobu laa nekk quoi donc di leen féliciter di leen encourager te leen wax ne c'est nous dans nous donc sama gars yi noonu la fay demee ba beneen yoon incha allah kontaan naa ci yéen beneen yoon incha allah. Saya kau sahaja kan.